Euh, chers soeurs, nous sommes aussi euh, au village de Senghor, euh, dans le région de Fatik, pour procéder à, à l'inauguration du, puits. Inch'Allah, ce puits qui est une sadaqatul djaria pour votre défunt papa. Alhamdulillah, vous l'avez appelé, vous avez donné le nom de Rahman Rahim. Qu'Allah accorde la rahma à votre papa, qu'Allah fasse que ce puits soit pour votre papa une sadaqatul djaria que tout eau qui est épuisée dans ce puits-là soit pour votre papa une source de hasanat. Qu'Allah vous accorde les mêmes hasanat. Vous aussi qui avez voulu financer ce puits pour votre défunt père. Alhamdulillah, comme vous pouvez le voir, les villageois, Inch'Allah, sont, présents. Euh, plus particulièrement les femmes qui ont des difficultés d'avoir accès à l'eau. Donc ces femmes-là, Inch'Allah, c'est elles qui faisaient des kilomètres pour aller chercher de l'eau. Aujourd'hui, Alhamdulillah, elles ont le puits à côté de leur maison. Inch'Allah, elles peuvent puiser de l'eau, Inch'Allah, pour se laver, faire la cuisine, Inch'Allah, laver leurs enfants, faire leur ibadat. Tout ça, Inch'Allah, peut être source de hasanat. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter pour vous ce don, qu'Allah vous bénisse, vous bénisse votre famille, qu'Allah mette la baraka dans votre famille, qu'Allah accorde le firdaus à votre défunt papa et que ce puits-là puisse durer le plus longtemps possible. Inch'Allah, que ce soit une sadaqatul jariyah qui va durer des siècles et des siècles. Inch'Allah, tout à l'heure, Inch'Allah, vous entendrez le témoignage des villageois, plus particulièrement les femmes, Inch'Allah, qui vont prendre la parole, Inch'Allah, pour faire droit pour vous et Inch'Allah pour vous remercier de ce nom. Barakallahu fikum, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. di leen jaajëfal kii joxe teen ñu koy gërëm di ko sant wajuram bobu gën aduna ñu koy ñaanal tan nako yalla yàlla ci arjana ndaxte fu ni ne nii waa dëkk foras baa ngi nii amul ndox dañoo amun jafe-jafe ndox <coughs> wax kecil ci yàlla nag waaye ki waral teen bi lépp ak moom la ñu leen di sant di leen gërëm te di leen yaakaar bu ñu mënee am beneen teen ñu am ko ndax gis ngeen ni mboolum yëpp lii mooy suñu ndoxum naan moom lañ yaakaar bu dëkk ñëpp nga may dégg mboolum naan lañ wut bu ñu amoon beneen teen dañuy jël yaakaar nañ ne nag sant leen te gërëm leen. yal na leen yàlla jàppale. kon teen bi waaw teen bi ndoxum naan la sañ ñu ko foote sañ ñu ko raxase pour naan kese la dafa neex waaw teen bi neex na kaar macha allah waaw yal na yal na neex ay yokku dafa mujj ak tamit yal na fa xiiwal ba yokku ñu ngi leen di ñaanal yéen ñëpp yéen ñi ñëw ña ñëwut ak ñëpp ñaanal nañ leen. ndax teen bi ak tamit suñu mbokk mi ko waral yéen xam ka indi teen ba ñun xamuñu leen jërë ngeen jëf yal na li yàlla jàppale. def ngeen ko war a wax dëgg neex yàlla ndaxte ten bi moom waa Sego ñëpp a ko bokk amoon na ay temps bee bee bee ma fa nekkoon te gis ngeen nu mu mel amut ndox. ku tëddee de matin la yi jóg ay 5 heures du waaye léegi da ngay tëdd ba 8 nga ñëw boo ñëwee da ngay root ku nekk bu ñëwee root root. ñu am ndox mu neex waa di ko naan waa dëgg sant nañ leen gërëm nañ leen yal na yàlla yokk xiiwal bi ak wér gu yaram bi ah moom yal na ko yàlla xaare arjana arjana bu gën a kawe moom def na ngóor moom itam. waaw na xiwal bi yokku rek. waaw maa leen di sant yéen ñëpp teen bi moom ñoo ngi koy rafetlu bu baax a baax ndax dëkk bi fu mu nekk nii forage bi daxul bu baax fu mu nekk nii boo bëggoon a root nii da ngay jóg ay quatre heures cinq heures yooyu noonu quoi waaye fu mu comme ni ko koy waxee boo huit heures yooyu rek da ngay root affaire bi moom vraiment ñoo koy rafetlu bu baax a baax maa leen di sant yéen ñëpp di leen ñaanal teen bi moom macha allah moom ndox mi dafa neex trop fu mu nekk nii kay moom ñoo ngi koy rafetlu bu baax daal. ok soxna si ko waral moom ñoo ngi koy niñ koy waxatee waa ñoo koy ñaanal daal di leen koy jaale yàlla xaaree ko àjjana ok jërë ngeen jëf ñëpp